Bonjour chers fidèles amis internautes de seninfo.net et Seninfo International, bienvenue dans cette page de l'information. Ouverture des assises nationales portant sur la justice, le président Bassirou Diomaye Faye va donner le ton ce mardi. Pour rappel, cette cérémonie se déroule au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio avec comme thème la réforme et la modernisation de la justice justice. Ainsi, plusieurs participants de la justice, de la société civile et des acteurs politiques vont rehausser de leur présence cette rencontre qui va durer deux jours. L'activiste Bah et le prêcheur Cheikh Ahmad Tidiane ont été jugés hier lundi 27 mai euh, pour division de fausses nouvelles et offense à l'encontre du chef du premier ministre Ousmane Sonko. Euh, cependant, l'activiste Badja Khaté et le prêcheur imam Cheikh Tidjane Ahmad Ndaw vont connaître leur sort le 3 juin prochain. La défense a retiré sa demande de mise en liberté provisoire suite au refus du procureur. Ce dernier a requis une peine de prison ferme de six mois contre Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidjane Ndaw au tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a également demandé qu'on inflige aux deux hommes une amende de 100 000 francs CFA. Le personnel du SAMU national, membre du syndicat autonome des médecins, pharmaciens, et chirurgiens, dentistes du Sénégal, SAMES, et le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, SUTSAS, une ont entamé une grève hier de 72 heures en réponse à l'absence de réponse concrète à leurs revendications. La grève se déroule là aujourd'hui, mardi 28 mai, au jeudi 30 mai 2024 euh, et concernera toutes les antennes du SAMU national, notamment à Dakar, Diourbel, et Saint-Louis. en grève de faim pour se faire entendre attendre, les travailleurs contractuels de la poste sont allés s'installer devant les locaux de la prémature. Ils ont décrété hier matin une grève de la faim devant les bureaux du Premier ministre, un mot d'ordre que ces anciens contractuels comptent poursuivre durant cinq jours et promettent de renouveler si rien n'est fait. À présent, parlons l'actualité hors de nos frontières. Bande de Gaza, Djabalia, dans le nord de l'enclave, sous le feu de l'armée israélienne. Tous les regards sont braqués sur Rafah. Cette grande ville du sud de la bande de Gaza a été meurtriée par de violentes frappes aériennes israéliennes dimanche 26 mai. L'aviation de l'État hébreu a ciblé un camp de déplacés où au moins 45 personnes ont été tuées, un véritable carnage, des corps décapités et calcinés de femmes et d'enfants ont été sortis des décombres. Et maintenant, terminons euh, cette brève sur la page sportive. L'équipe nationale du Sénégal a tenu sa première séance d'entraînement hier aux stades annexes du terrain Abdoulaye Wade de Diamniadio où 19 joueurs étaient présents. Les choses sérieuses euh, commencent pour l'équipe nationale du Sénégal qui affronte la RD Congo 6 juin et la Mauritanie 9 juin euh, pour deux rencontres comptant euh, pour la troisième et